fajal sa soxla boobu nga xam ne moo tax nga jàng dog boobu Hadji Babacar. jërëjëf Oustaz Mor. RFM matin RFM matin. émission bi yee waa Sénégal. RFM matin 7 h ñu dalal euh, sunu gan Nafissatou Wade salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. ñu ngi nuyu itam Georges Dethié Diop Nafissatou Wade euh, bokk nga ci euh, mbootaay gi jigéenu Sénégal yi tuddee seen bopp caucus des femmes leaders taxawal bokk nga ci ñi ko sos. Euh, bokkoon nga itam ci élection yi weesu ci aselem nga doon euh, xëccoo euh, bala ñoo laaj nu mu fa demee ak yow loolu la ñu njëkkee sax élection yooyu loo ci gis ci foofu ci aselem nga bokkoon ndax yéen da ngeen bëggoon jigéen ñi ñu tabb leen fal leen ci yooyu élection fal wala président département yi yow ci sa cas personnel nu mu fa tëddee ci ci HLM gi nga bokkoon. waa merci beaucoup déjà dañ muy mayaale kon occasion pour ma nuyu euh, waa HLM bi nga xam fa laa jóge nii euh, di leen remercier aussi di leen remercier bu baax parce que période bi nga xam laata ñuy dem euh, ci vote bi xam nga ni dañu nekkoon campagne pré campagne te jamono yooyu yëpp vraiment may nañu si seen bopp dugg seen biir kër yi waxtaan ak ñoom déglu leen ñoom it ñu dégluñu donc loolu amuñu seen fay. ñi nga xam ne aussi itam ñoom ñooñu ñu accompagner vraiment euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen nuyu mooy waa coalition gox yi bees te loolu su ma koy def damay koy jaarale si suñu tête de liste euh, Adama Sène mi nga xam ni moom moo boot euh, kuréel googu man ak moom en tant que tête de liste majoritaire te mu nekk leader bu nga xam ni gis na ni gox bi rek moo ko ñor moo tax moom tamit dafa bokk. ci li nga xam ne moom la ko gis des femmes euh, waxoon di ci liggéey moom mu bokk ci góor ñi nga xam ne dafa jàppoon ci gëm-gëm 2022 euh, à compétence égale dañu wax a bàyyi jigéen ñi ñu jiitu loolu moo tax moom mu ànd ak coalition gox yi bees ñu jiital ma donc tam leen di gërëm di leen sant di wax ni effectivement le caucus des femmes leaders avec la présidente euh, Fatou Sarr et le programme WPP Women Political Persuasion ñoom dañu am jàngat bu mag bu ñu defoon ci élection yi ba pare liggéey ci Euh, liggéey bu am solo lool am solo parce que dañu gis ni que jigéen ñi ci gox-goxaat yi cest à bu ñuy wax wàllum émergence ci réew mi euh, foog ñu boole tànk yi ñu yor yëpp kenn mënul doxee benn tànk mooy dañuy boole góor yi boole jigéen ñi boole mag ñi boole ndaw ñi ñu gis ni que jigéen ñi ci biir euh, parce que langue gi ñu nekk lu ci bari politique yi dañ ci am wàll donc góor ak jigéen liñ leen laaj rek mooy citoyenneté taxaw mën a jàmbaarloo euh, beneen bi aussi mooy dañu gis ni que jigéen ñi euh, jamono yi ñu nekk nii léegi am nañ xarañte am nañ compétence am nañu expertise mais am nañ surtout euh, joxe seen bopp pour seen gox am nañu joxe seen bopp pour pour parti politique yi nga xam ni si lañu nekk joxe nañ seen bopp parce que gis nañ tamit candidature indépendante féminine yi parce que tout simplement dañu jàpp ne war a taxaw caucus des femmes nag lu mu ci def mooy Euh, dafa fital jigéen ñi en fait c'est-à-dire na leen ni que dañoo war a bokk ci liggéey bi dañoo war a bokk ci jongante bi waaye dañu xooloon ni que aussi euh, si ay résultats gox-goxaat yi les maire yi nga xam ni euh, barewuñu woon ñu ngi nekkoon quinze mu nekk 2,6 pour cent à peu près sur 557 communes. loolu daan ci ñëwaat mais yow ci sa wàllu bopp ci HLM. oui élection bi nu mu tëddee. waa élection HLM euh, résultat yi génnagul mais li nga xam ne mooy. mais déjà am nga ci idée. résultat waaw résultat provisoire yi je pense que sur euh, si dëkk bi yëpp ñu ngi koy commencé di ko génnee foofu nag moom euh, Yewwi Askan Wi ñoom ñoo raw donc ñu si profité aussi di féliciter ki nga xam ni suñu collègue la d'ailleurs di conseil nekkoon conseil municipal di Moustapha Diop parce que moom la coalition Yewwi Askan Wi tegoon ci bopp. seen coalition te ñoom ñoo fa raw donc euh, je pense que ça ne sera que confirmé avec euh, les résultats officiels donc ñun yàlla dafa def def nañu li ñu waroon yëpp. comme hmm. je le dis euh, bu dee ci ndakaaru ville bi. ville bi soo xam war di ni ngeen bëggoon yéen caucus des femmes. mu falu gis nañ résultats yi ni mu tëddee lan moo doxul. nit ñi bëggul tofal jigéen ñi wala jigéen ñi ñoo deful lu tax ñu ñu war leen a fal. en fait du du du wàllum jigéen Euh, élection yi ñu gis nii par exemple si Yewwi Askan Wi ah, euh, gis nañu ni que dañu rafle lu bare fii surtout si Dakar euh, moo tax tamit Soham vague boobu moo ko yóbbaale en fait tey du du nit du nit ki la ñu fal du nit ki la ñu falul on s'est rendu compte que dans beaucoup de commune nit ñi dañu parle sax di laajte kan mooy suñu maire mais on a vu que quand loolu moo jaaxal am na ñoo xam ni voté nañ ba pare di euh, rek tànn këyitu Yewwi te xamuñ sax ku nekk ci kan mooy candidat Yewwi bi xamuñ sax seen maire. parce que man j'ai eu la surprise le le lendemain euh, nit ñi bi ñu ñëwee xëy rek gis ni Yewwi askan wi moo moo moo jël moo jël foofu raw gàddu bi ñu bari après dañu ñëw dima laaj kan mooy kan kan moo gagné j'ai dit c'est askan wi qui a gagné avec Moustapha Diop ku nekk di te nangam ak nangam ak nangam et je me suis rendu compte. waxal rek mooy ku ne naan kuy Moustapha. du gox bi kese. du ah. suñu gox kase saa à li may wax nii du ma ko bëgg a focaliser si HLM. parce que man par exemple xam naa nit ki bu baax parce que nous avons partagé le conseil municipal mais li may wax euh, xëy na euh, xam ñëpp sax mënul nekk ñëpp xam la mënul nekk mais dama wax dans cette vague déferlante là euh, yóbbaale na ñëpp teg leen si suuf. waaye am na ñu bari ñu nga xam ne yëkkati leen ñu jóg ci kaw parce que nous nous sommes rendu compte véritablement que du affaire góor ak jigéen parce que ñun jigéen ñi aussi amaale nañu ci biir yeewi bi moo taxoon ñu doon def quand on faisait les di wax les coalitions surtout ñu nga xam ne ay coalitions yi fi mag la mooy Benno Bokk Yaakaar ak. Euh, est-ce que ni nit ñi di voté ak fi ñu koy teg baax na ci réew mi ci sa jàngat. man si sama jàngat du noonu parce que xam nga lu tax euh, euh, xam nga man dama nekkoon. Euh, élu en 2014 di taxaw Dakar naturellement nit ñi dama doon dañ ma doon gis Yewwi Askan bi effectivement j'ai eu leur charte et mais bi ma gisee yëf bi di dem et c'est ce qui s'est aujourd'hui mooy dama gisoon ni nit ñi euh, que mu nekk pouvoir que mu nekk opposition bi ma bokk dañ doon gën a focaliser wu ci 2024 nañ tegg ki fi nekk man je l'ai dit dans des émissions j'ai dit 2024 c'est une autre élection c'est l'élection présidentielle boobu bu ñu fa yeggee jàmbaarloo day taxawaat li ñu woon def ñu def ko ñun ñëpp mais mënuñu woon jël élection locale yi taf ko ci élection présidentielle la preuve elle bien là mooy dañoo jóg pour parce que ñëpp xam nañu la lecture politique nit ñi voté wuñu pour defar seen gox yi en fait dañu voté parce que il fallait euh, wane ki fi nekk tey xëy na nag ndóol gi metti na ñàkk liggéey gi metti na santé bi tar na lépp dara doxul naam dëgg la waaye la doxul ci kaw warul faagaagal ñun suñu defar gox yi ci suuf te loolu man xëy na mooy li nga xam ne euh, c'est vraiment dommage parce que euh, tey élection locale man boo gisee madame def coalition gox yi bees une coalition citoyenne et très responsable parce que poli je suis femme politique naam mais dama ne élection locale c'est des élections locales les élections législatives seront des élections législatives présidentielles bu ñëwee ñëpp. ndax da nga ndax da nga jàpp ne ak euh, lecture bi nga def boo moyut mbir mi dana retourné wu contre ña nga xamante ne ñoom la ñu fal te leen. waa en fait bu ñu leen xamul. parce que wooteel nit te xamoo ko wooteel ko te programme taxut euh, la ngay xaar ci moom mën naa bëri te du ci euh, mën a du ko mën indi saafara carrément ni nga ko bëggee. xam nga damay wax le le spectre 2014 moo fi ñëwaat parce que 2014 aussi on se rappelle taxaw Dakar c'était ça mais bii xam nga lu tax mu gën a. man mu gën ma yéem en 2009 aussi c'est-à-dire en c'était pas la même chose en 2009 c'était pas la même chose parce que dañ doon far kuréel kuréel gi fal seen biir nit ñi ñafe xeex man bokk naa ci aussi même suñu programme en 2019 dañu waxoon il faut que suffrage bi ñu dem ba bañ confisquer le vote des citoyens mooy ñu gis ni ki nekk sa bopp ba moom laay fal mais tey day mel ni nit ñi gisuñu que la suffrage était direct en fait faluñu nit ki nga xam ne moo nekk ci bopp ba dañoo fal coalition bi nga xam ni moom moo moom la ñu jàpp ni moom moo jàmbarloo ak ñi fi nekk tey man HLM par exemple euh, coalition gox yi bees loolu tam beneen affaire la tey dañuy dégg euh, Diouf Sarr doon na wax dakaar bu bees euh, Fann Point e bu bees et c'est le pouvoir qui utilisait aussi ce terme man dañ ma doon laaj dafa mel ni xanaa kon yéen yaa leen bokk il a fallu que quand même je dise attends xam ngeen kan mooy Nafissatou Wade mësuma bokk coalition boo Bokk Yaakaar mësuma leen laale bokkuñu mais même cette connotation euh, et, et ça aussi ça a été une malhonnêteté très politique de avec la coalition gox yi bees ñëpp dafa mel ni bu bees bi dafa leen neexoon donc ku jóore da ngay wax nangam bu bees mais quand même c'est dommage mais je aussi à ceux qui sont élus ñu ngi leen di féliciter bu baax parce que aussi lii dafay wone que euh, ndam ak falu suñu borom rek la ndam ak falu suñu borom rek la te lii tamit nag wane na ko bu baax mais di wax ni ko aussi ñi nga xam ne yàlla teg na leen fi parce que ñoom ñoo fi war a toog tey li ñu war ñun ñëpp dans nos communes respectives mooy man mi ni nga xam ne dama nekk candidate yoroon programme bu nga xam ni euh, waxuma askan wi waaye sama ay nattaango leader euh, félicité nañ ma ci rafetlu ni que programme bi c'était un programme excellent campagne bi def nañu communication bu mucc ayib ba sama benn morom nattaango leader ma koy félicité moom tamit dafa ni ma sax vraiment lii dañ ko dagg def ko def ko livre parce que pour mu jariñ gox bi. Mm. donc aujourd'hui ce que nous voulons mooy ñun ñu ñëw joxe waat suñu bopp programme yi nañ ko jël boole ko ku si nekk fa nga nekk. ba pare nga boole ñëpp ñi nga xam c'est des compétences parce que ñun bi ñuy campagne loolu lañ doon campagne mooy que HLM regorge de compétences nañu boole ñëpp fas yéene ànd sur cinq ans liggéey donc ku mënti ñëw ak ku ñu mënti fal tey. Ah, fexeel ba entouré wu ak ñëpp. pour que sa commune jëm ci kanam parce que léegi li may wax rek su dara pay weesoo il faut aller de l'avant aller de l'avant c'est de voir comment nous allons faire pour que les communes se développent. sànq wax nga ko ji fukk fukki euh, jigéen ak euh, juróom ñoom ñoo jiite woon ab maire ci euh, mandat yi nga xamante ne moom mooy jeex ni yéen waa caucus yéen da ngeen bëggoon ñu fal ay jigéen sur la base de ñi nga xamante ne ñoo nekk ci liste yi une centaine wala sax la ëpp ban retour ngeen am. depuis avant-hier ba léegi ci jigéen ñi nga xamante ne xëy na mën nañoo jàpp ne ñoom ñooy jiite ay maire dana ah. yokk comme dana wàññi wàññeeku. ñu ngi am yaakaar dina yokk tuuti parce que xam nga lu tax euh, déjà bi ñuy euh, def kuréel bi ba commencé jàppale jigéen ñi dinañ wax ni que jigéen wax nga nekk maire. Mm. parce que gis nañu ko développement gox dafa ànd ci moom gis nañu jigéen dafa am bonne gouvernance gis nañu jigéen dafay jël yeneen compétence yu nga xam du ay compétence transférées par exemple sur les valeurs sur l'éthique yooyu jigéen ñi dañ ko ëmb mais aussi jigéen dafa bëgg waaw góor jigéen dafa bëgg euh, goxam set jigéen dafa bëgg euh, ku feebar nga faju mais bëgg na ñu ñi lekk naan mais surtout cette ce problème de la jeunesse dans nos dans nos dans nos dans bi nga xam dafa taat jigéen ñi indi nañ si ay solution yu adéquates tey aujourd'hui c'est vrai que le caucus des femmes ñun suñu biir d'abord avec WPP dañu amoon ay candidats yu nekk ñu biir doomu man ak euh, ñi nga xam ne tey jàll nañu ak ñi jàllul man ak Mariama Ndiaye de Guinaw Rail Sud y avait euh, aussi astu euh, Astou Sakho à Kédougou ñun yàlla dafa def jàlluñu mais quand même nous avons des femmes comme ñi nga xam ne maa ngi leen bëgg féliciter fii te su mu leen tënkee rek tënk naa jigéen ñëpp mooy Khady Mayekor euh, Khady Mayekor Diouf à Golf Sud ak moom Khadima Gerkoch bu bu Pastef. bu Pastef moo duma Lat Diop bu directeur l'ONAS duma yu métti. voilà gis nga yëkkati ba ci kaw. <laughs> et puis y' a aussi notre sœur Maïmouna Dieye du Pastef aussi à à Padoua y' a Oulimata Guiro Euh, donc ñooñu li nga xam ñoom la ñu si jàpp si ñi nga xam dañu bokkoon ak ñun te caucus bi aussi ñu leen di gërëm di leen sant parce que femmes yëpp yu nekkoon ci WPP bokk ci caucus caucus bi taxaw na leen taxawul waale quand même euh, la la maire de Dakar ak boole waale si la maire Thérèse euh, Thérèse Faye de de de Benno Bokk Yaakaar gis nañu sax flyers yi ñu def ak banderole yi lépp pour jàppale femmes yi pour ñu taxaw donc aujourd'hui ñun ñëpp dañuy félicité suñu bopp c'est le fait que les femmes puissent participer et elles ont participé massivement en tant que déjà candidate à la candidature ba pare après en tant que candidate ci commune yi ci gox yi. parce que mais mais est-ce que affaire affaire affaire falu maire mbaa leneen euh, mbirum góor wala jigéen la war a doon itam euh, lan mooy euh, li war est-ce que du intérêt ñi ñiy falaate ak ñi leen war a jiite est-ce que fi ngeen ko teg foofu la góor ak jigéen. waxuñu waxuñu waxuñu en fait il faut wax bi tam mu leer waxuñu euh, dañu bëgg rek jigéen par force tegu parce que la preuve ñun dañ ko doon wax même dans le caucus c'est-à-dire dañ leen war a fital dañu war a fexe ba nit ñi xam ne jigéen dafa war a falu mais falu aussi du kaay ma fal du du caucus mooy falaate du caucus mooy dem di vote ji c'est les populations qui sont dans les localités ñooy fal mais su fekkee am na jigéen ñu nga xam ni ñi ngi fa te wax dëgg fa yàlla posé wuñu candidature naka lañ leen di fale loolu tam c'était important de le faire naka lañ lay fale te ñemewoo amoo fit taxaw posé candidature donc aujourd'hui ce que nous disons c'est pas fal jigéen pour fal jigéen dañu ni quand même là où les femmes sont compétentes cest à jigéen su amee expertise am xam-xam am xarañte mën a yëkkati gox yi foofu tamit jigéen dafa war a taxaw est-ce que góor ak jigéen naam du affaire góor ak jigéen affaire développement gox yi la pour gox yi jëm ci kanam aujourd'hui aussi il faut ñu marquer rupture boobu parce que tey fal fal fal en fait dafa nekk lu nga xam dafa xaw politique fal war nañ dem ci gox goxaat yi ñu dem ba nga xam ni dañuy xool intérêt gox bi ak ñi nga xam mën nañ yóbbu gox bi ci kanam. parce que mais mais mais est-ce que mbir mi doxut yéen waa Caucus est-ce que c'est pas parce que tout simplement ngeen doon waxal c'est l'élite féminine. non non attention parce que tey par exemple li tax Khady Mayakor ak euh, ak a Dièye par exemple euh, de Pastef boobu laa mën a joxe comme exemple euh, ñu ñu ñëw ci ci langue gi naam am na liggéey bu ñu liggéey ñoom si seen bopp si seen biir kuréel mais ñun dañoo jóg parce que xamoon nañu ni que am na ñuy voté naam mais balaa ñuy voté dañ leen di tàbb nous sommes allés voir kuréel yëpp tous les leaders de partis politiques et après les coalitions parce que dañu gisoon ni am na coalition yu mag yu fi naa taxaw te ñoom dafa mel ni victoire bi foofu la naka nekk c'était benn Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi donc ñooñu tey autant de femmes yu ñu dugaloon effectivement femmes yooyu dañuy jàll avec Yewwi Askan Wi donc waxoon nañu ni tey il faut ñu jot euh, tabb leen par exemple au niveau du PASTEF on a rencontré la président Sonko waxtaan ak moom wan ko ni foog ngeen tabb ay jigéen parce que tamit loolu mooy indi tam jigéen ñi ñu mën leen a fal aujourd'hui on a vu la vague Yewwi Askan Wi on a vu Benno Bokk Yaakaar donc effectivement ñoom plus de femmes ñu tegal leen plus de femmes ñu jàll après nag c'est les autres candidatures de femmes indépendantes de femmes qui sont dans les autres coalitions yi nga xam ne aussi dañu jóg taxaw indi ñun par exemple man une candidature euh, c'était une candidature de demande sociale mais après c'est une, une candidature de profil et d'expertise en développement territorial experte là en développement territorial gox damay jàpp ni dama foo am wareef ñëw teg fa looy defaree beneen gox di fa liggéey. mais mais daal yéeme na mooy yéeme na mooy li xew HLM ak parcelle nit ñi di yeew naan kuy suñu mer ñoom la ñu woteel doy na waar mais euh, Macky Sall a ngi waaj a tabb normalement premier ministre bu bees yaakaar ngeen mu def ko jigéena a jigéen waxtaan wi. ba jigéen ñi ñëpp wax nañu ne que suñu waxee am premier ministre dafa nekk jigéen. Ah parce que waaw du question parce que jigéen luñu. En fait, encore une fois, le combat, euh, le combat, ce combat que nous portons n'est pas un combat pour les femmes, c'est un combat de développement. Et je pense que le président aura bien compris que ce développement aussi passe par les femmes. Donc, premier ministre bi moom xam naa dañ koy wax fii sur euh, RFM euh, ñu ngi ko koy wax ni ko su bëggee réew mi dox su bëggee réew mi dox na jël jigéen teg ko mu nekk premier ministre dinañ gis ni que liggéey bi dina mucc ay mais moo yi ñuy jooy yëpp euh, dina jeex avec une première ministre mère. jërëjëf Nafissatou Wade euh, bokk ci caucus euh, des femmes jëf Georges ñu ziar soxna naata ak ñi mu àndal ñu yendu ak jàmm. merci beaucoup Babacar Fall Georges Dicté Diop et toute l' leen gërëm leen bu baax a baax ñu dellu si ci plateau Info Matin ak euh, dernière partie bi léegi léegi dañ koy door rek xibaar yi àndi ci ak Ibou Diouf.